biñ demee ba mu a ay gaz xaas. fan ngeen ni kilomètre jar lan doon te bees. danga luyaas xaw ma loo ca fay. bokkut ak place bi nga xam ne yaa ko luyaas te xamul loo ca fay. te liñ ko toppatoo xee dana jege téeméeri junne. ñu ngay ñaanal ci yàlla. nit bés jot. lépp Abdoulaye moo koy jël waaye bàyyi lépp loo jox addiyee Cheikh Abdoulaye Ndaw moom moo koy jël waaye bàyyi des ma cee teg. wala da ko am dàll yooyu nga dëkk ko ci tànk. soo dëkk kon dàll yooyu nga dëkk ko ci tànk. tànk daa nga métti waaye xoolal cay mer. tànk yi xam métti waaye xoolal cay mer nag. te dàll yi laal. te dàll yi laal tol. loolu daf lay gàndal. moo xaddam bi bi saaba yëpp dawee moom dafa taxaw ne moom daal du lay mukk ne yonum tuddee na day dee fi yonum tuddee rek foofu la nekk di jamante ak gaañ yi loolu bëri na lool Seyda Ajaratu ay dafay foofu la ne nekk nekk ci biir suufiyanke te kenn mënul laa joxoñ baaraam. continuer ci loolu. Mariama. yaayu Isa. ba mu joxee suufiyanke cërëm. yaa rijaalullaahi jàng nañ benn taalibe Seexu Tijaan bu ñuy wax Arab ibnu Saayid bu la ci biir tariqa dafa weex. maanaam sëñ bi dër dafa weex. dër dafa weex tal. ku xolam weex tal. ku xolam weex tal. moo mën a dégg jikkoy sufiyanke. dër dafa woyof li ñaari jigéen bu ñuy tuumaalee njaar. mu ne ko su dee ci loolu ñaari jigéen su ñuy tuumaalee njaaroo. kii andi doom. kii andiwul dara. kii andiwul dara. bu dëgg xamee ku ci gën a dëggale. mu ne ko kenn di doom. mu ne ko dëgg la ñun suñ. dem na seen yaay yonent bi muy Mariama. ba ko yowoo di tuumaale. ne dafa njaaloo doom ji. ne dafa njaaloo doom ji. bañ ko tuumaalee andi na doom. mu ne ko tontoo ci alxuraan. mu ne ko alxuraan nag nee na. mu ne ko alxuraan nag nee na ñoom ñëpp waxtaan yi ci wax dañuy fenn. Aïcha mos tuuti jege njaaloo. Aïcha mos tuuti jege koy jege. Mariama mosu koy jege.